maa ngi nii di la maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm yow xamoon nga lii yëpp ci pétrole beeg ci gaz bi. waaw maa ngi ko doon dégg nag euh, d'ailleurs que maa ngi nuyuwaat mbokku sénégalais yi rek yi nuyu aussi tamit sama tonton bii ma toogal bokk ak moom plateau bi responsable aussi kàddu yi am na solo trop. Mhm. parce que Pape Sidi. Mhm. ñun jeunesse su Sénégal dañoo war a yeewu si bañ di dox si violence te war xam. état bi yan ak acte lay doxee si réew mi ci wàllub liggéey parce que ñun jeunesse bi li nekk sunu njariñ ëllëg mooy comme projet bi tonton bi di wax mhm. man bëri na loo xam ne xaw ma ko si woon mhm. mais wax dëgg fa yàlla leeral nga si lu bëri loo xam ne leer na samay nopp mhm. aussi loolu moom ñoo leen si nuyu bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf sant di ñaan projet jërëjëf maa ngi lay ziar bu baax yow. maa ngi lay delloo waaw Pape Sidi. Cheikh déranger lu tax ngay <laughs> xam nga nag man euh, dama dugg école presque ay troisième yooyu noonu laa bàyyi. quand tu commences laa bàyyi. parce que nag waaw <laughs> troisième daggitukaay. aussi dama doon élève boo xam ne perturbateur laa daal. waaw. <laughs> man moom cultivateur. <laughs> voilà. Ah, perturbateur voilà ba. ok. voilà. d'ailleurs waaw du. madame bi ñëwee jàngale si war a bind dara si tableau bi man. du ma si bàyyi sama xel notre corps. waaw notre corps. mais éducation sanitaire bi laa gën a jàpp. ban la parce que dama setoon sam bopp moo tax ma bëgg ko moom mooy set set voilà euh, bi ñu naan éducation sanitaire propreté du corps je me lave. avec de l'eau et pour éviter <laughs> <laughs> notre corps comprend. ah notre corps comprend trois parties. la tête. la tête le tronc. le tronc et les quatre membres. mais man quatre membres supérieurs laa doon wax. quatre membres supérieurs supérieurs inférieur inférieur. <laughs> <laughs> di nga demee maram bi day reetaan ba sonn. Mhm. Euh, man moom dama nekk jeunesse boo xam ne dama teel a bëgg aar. Mm-hmm. dama si dama si teel a dugg tamit aussi xëy na yàlla suñ borom nii la koy tuddee nii lay jaareele ay mbiram euh, donc sama famille man ñu bëri daanaka ay muxaddam lañ laay wax mm-hmm. parce que ay nitu yàlla lañ mm-hmm. ñëpp si diine la ñuy dox mais yàlla dina dogal ne nga bokk benn famille boo xamee suñ borom danaan jëm jii kat lii laa namm si moom lii moom ma neex si moom voilà man moom chaque jour damay bégale. non man tu m'as surpris quand tu as dit fait la tête le tronc et les quatre membres supérieurs. <laughs> Ah, tu m'as surpris ay nga. mais ja rek nga jàpp école. non loolu rek laa jàpp école parce que man moom ay jàng yi nii bëggoon naa ko trop parce que aayoon naa si quoi périmètre du carré. Euh, périmètre non aayu ma si noonu da <laughs> aywa si noonu. Ah. Pape Sidi. Ah. ñu jàll si leen. ñu jàll si leen laa bokk ak plateau te instant bi day classe. dama la dama la dama la bëgg a defal ay leçon CM2 xaw ma périmètre du carré est-ce que loolu. loolu à ah, trois troisième on l' apprend. ah on l' apprend oui on l' apprend. troisième xam nga ni niveau CM2 moom àggagu ko. waaw périmètre du carré c' était pas. ah CM1 C1 sax C1. C1 voilà. <laughs> voilà. Adjara je te rappelle dès que je termine ici. Euh, léegi. waa tàmbalee bokk ñu lépp. waaw euh, ginnaaw ba ma sante yàlla. julli si yonent bi sant samay ñaari waajur. Euh, sant waa kër mhm. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul sant njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di ñaanal sunu xalifa waaw dëgg la góor dëgg bàyyi laa la Fall ba nga ko waxee stade yëlli ma neel Fall sama xol dafa sedd <laughs> waaw waaw na koy riimee noonu ma ne <laughs> di nuyu aussi tamit waa kër gi waa 2STV télé bu ma neex la yàgg naa rêvé pour ñëw fi booy léebal ngay expliqué mbër sax duy dugg combat faaw mu néew toog gaay <laughs> léebal lu on veut dinaa daal sant naa tonton El Hadj Ndiaye bu a baax dàq nan ko ah El mooy borom sama xarit la Pape Sidi boole ma sama soppe la sama ancien xarit waa Diourbel ga ma di leen sant bu baax a baax Pape Sidi waaw dama lay nettali lu doy waar mm-hmm. gis nga ndakate topp sa diggante dina dugal nit si lu ne mm-hmm. waa suñ borom dafa dogal dafa luyee benn néeg côté jàmm gën mais moom dafa am ñaari booy yu koy fréquenté ok suñ borom dogal waa ji day dégg dig te mosut xam dig mosu faa teg tànkam. division investigation criminelle billaahi xam ne képp koo xam ne sax dañ la faa jox convocation da koy xalaat <laughs> daanaka doo nelaw. yaa ngi dégg Pape Sidi. maa ngi dégg bu baax. naka noonu ndakate dafa am ñaari boy yu waa dig di recherche. Uh-huh. ñu dox ba daw ba dugg kër waa ji. biñ duggee kër waa ji nag ndakate booy dafa dañoo yor lu ñuy tere. Mhm. ça veut dire booy yi xam ne. booy dañoo dañoo yor bon voilà. <laughs> exemple léegi ñu xam ne suba du ñu xëyee fajar dinañ leen wër si. far dig di topp enquête bi ba xam ne booy ñaari booy ñoo ngi ci biir kër waa jooju noonu booy xëy 7 heures gàddu seen bagage daw dem léegi nag waa dig ñëw si kër gi dajeeg waa ji ne ko yow soxlawuñu la. ñun ñaari booy yi lañuy ñuy dañoo bëgg nga teel ñoo wax ñaari booy yi si lan lañ nekk yow ñu bàyyi la nga dem segam kilifa nga ndakatee waa ji moom day jaay ne dafa am fit day topp diggateem ne leen man ñaari booy yi gisuma leen mm-hmm. xaw ma sax si lan lañ nekk waa dig ne ko abo ah mu ne leen waaw ñu jàpp yóbbu dégg moom bi muy dugg si buntu dégg moo ngi dégg coowal dig ji ku nekk ñoo ngi la xam nga teg si benn ruq di la laaj di la enquête kii naan non defuma ko kii naan du man kii naan non du man musuma koo def mm-hmm. léegi affaire yooyu dem ba lëbëje bopp bi jaaxal ko léegi ñu teg ko si benn saal nii commencé koo bëgg a torturer jël maanaam ki nga xam ne moo dàq torturer si armée nationale bi indi ko moom dóore rek lay def moom moom enquête rek lay def waa ji ne leen kii du ma waxagum ay waxam tëjal leen ma ko si néeg dans trois jours de leen ko joxe café Touba saa yu yeewoo ba ma ñëw trois jours léegi waa ji troisième jour bi mu ñëw bi mu ñëwee ne leen tijji leen ma ko ñu tijji ko mu ne ko sëñ bi dama lay wax sa teel man sama liggéey laay def waaw dama lay laaj ñaari booy yi xam nga leen wala xamoo leen mu ne ko grand barki rasulillahi masuma leen a xam oh mësuma leen a xam. et moi il joue sur parce que moo ngi topp digiteem. léegi yàlla dogal. waa ji jël benn fiiru courant cap si batterie bi teg ko si benn chaise. waa ji toog bi mu toogee posé wu. mu ne ko sama sëriñ. dama lay laaj ñaari booy xam nga leen wala xamoo leen mu ne leen noonoo non xaw ma leen. mësuma leen a xam. jour boobu laa leen ni soog a teg bët. waa ji jël fiir bi maas. léegi chaise bi mu toog dañ koo kuppati. yaa ngi dégg. jël beneen fiil bi monté ci euh, euh, courant bi jël benn fil bi langal ko jël fil bi jàpp kos ne ko keej waa ji xam ne maas nañ ko benn yoon mhm. deuxième fois bi ñaas maas ko troisième fois mu ne ko non chef attends déglul ma wax la ñaari booyi booyi ñett lañ <laughs> Demba Njaay la at koo Njaay ak Alsan Njaay ñoo bokk ndey baay <laughs> ñoo bokk ndey baay maanaam problème bi mooy waa ji nee du wax trois jours lañ ko tëj mais trois jours ah. mandat de dépôt bi ah. foofu jeex na parquet jeex na da ngay dem da ngay dem da ngay dem da ngay dem da ngay dem da ngay dem muy ji procureur mais maanaam torture bi ñu ko torture moom yaa ngi wax ne enquêteurs yi dañuy torture non <laughs> non non boo génnee fi ba alkaati yi jàpp la samay xarit lañ samay xarit lañ samay am naa si ay papa am naa si ay jox ma jox ma beneen jox ma voilà léegi beneen bi ma lay jox mooy mm-hmm. waa ji ab malien la malien malien la maa ngi nuyu sama mbokk malien yi dafa ñëw Sénégal mm-hmm. waa ji rëyaayam toll na ne talfadam doy à peu war na mën a taayam nga jël Bombardier sol si waa ji. bu ma jëlee jël Balla Gaye waaw sama xarit maa ngi koy nuyu. bu ma jëlee mënul jàpp ji ma dóor maa ngi koy nuyu ah. man waa ji dóor bu ko dóor moo ma feebar. may ma foofu deux secondes. Ah? ma doon jàpp di ma dóor di ma maltraité di ma torturé di ba sama loxo bi ba muy métti weer. <laughs> Ah, wallaahi. yàlla ay ci potum mbuur da ngay dóor Pape Siri ndax dafa yooy nga dem yàlla dóorlu la wóobu la ba ba bitim réew tubaab mu dóor la kay nga daal waaw waaw léegi ñu jël bi boobu <laughs> dóoraat ma kaay dóoraat ma <laughs> Pape Siri bañal loolu Bombardier tubaab yee ko yam mais sénégalais moom mosuñu koo yam waaw moo tax mu manqué woon adversaire au temps euh. léegi Pape Siri mhm. waa ji rëyaayam doo koy natt toll na ni ñooñ ñëpp si làmb ji mu ñëw ñu ne ko Sénégal benn sport daal bu am xaalis a fi nekk muy làmb ji. léegi nag dañu naan ñu tëggal la combat. mu ne non waaw malien la. léegi mu ne leen ñi si ràmb ji maa leen mën dama leen i ñii duma ñoom barki yonent bi dama leen i ray léegi ñu ne ko lan nga bëgg a liggéey mu ne yanu conteneur far yàlla dogal am benn waaye bu COPEM di jóge Argentine indi ñetti conteneur aéroport jas gis waa ji ak taayam conteneur jas aéroport Diop waaw waaw. conteneur. rek. waaw dañ koo nag bi mu ñëwee. ñu gis marche boobu yaakaar ne moom war na koo mën a liggéey. Mm-hmm. ñu ñëw proposé ko ko. ne leen garaawul léegi man ni may def euh, ñu ne ko yow da ngay dogot dogot conteneur yi wala mu ne non damay yóbbandoo ñett si ñu ne ko aboo ah mu ne waaw. waa ji premier conteneur mun a jàppale leen ma ñu jàppale ko teg premier conteneur bi situ bopp yi commencé wàcc bi ñu tegee deuxième conteneur bi bët yi commencé raf troisième bi bët yu suulu waa ji xaw a tata fi ñu ne ko tey ñu laa jàpp mu ne déedéet matewu ko man ñi si làmb ji ñëpp maa leen mën oh. ñu ne ko <laughs> aboo mu ne waaw waa ji di dox di dox di jékki-jékki affaire yi sonn na xamut lu muy wax mu def estati taxaw ah. naan ma del xafoori ma del xafoori ñii naan mooy yoon kii moom lu muy wax dafa am benn dof bu ñëw ba si expliqué leen ñëw. waaw waaye dafa dof dafa doole ne dañ koy yéen conteneur waaye bi ñu diimalee conteneur conteneur bi la gis rek naan yéen ma yow ba tey lay doxee si biir day romb naan yéen ma yow. takkandeeru conteneur léegi. c'est sûr mais gis parce que a yenu trois conteneurs. voilà yenu kon ñu continuer rek. dañu mu yenu bi. kanam gi commencé wàcc. mu taxaw naan ma del xëfoori ma del xëfoori client bi nga xam ne moo ko engagé naan kii moom li muy wax nii lan lan mooy ma del xëfoori benn malien yam si ne doon ñan mbokkam la ne leen kii nee na ngeen yenn ko ndax mu xeef <laughs> nee na ngeen yenn ko ndax mu xeef parce ay lan a diis. may ma may ma may ma rek une ma may waa ji si jàng te mbëkk. waaw waa ji boobu waa ji ça non si dëgg la <laughs> démb da ngaa réew a. ma rey démb. waa dafa ñëw si jàng yi xam nga ñun murid ndeysaan dañoo xër. oui saa yu ñëwee nag dafa tàmm daal. déglu murid duñ tuddee. xalifa Cheikh Marou Bagay jërëjëf. mu ne tib benn poto poto bi noor. gars yi jàpp leen tegee <laughs> nii ñu si karaat xalifa Cheikh Modou Gueye bàyyi daam jërëjëf mu ne tell benn poto poto bi noonu ñu ne nañu wàcce poto bi ñu ndakate koñ bam dem jàng tey miir yëpp ay miiru suy la miiru wis i miiru wis <laughs> miiru wis yi waaw yi xalifa Cheikh Modou Gueye jërëjëf mu ne tell miiru wis ba yaakaar ne affaire yi daa xoos <laughs> ci ndakate boobu kanam gi moo lelleeku mu def nii commencé gis deret ji rëmu ko mu yoot nànk ba gis ko nii si bëri deret ji di toq mu ne cëy lii ci suñ Tuubaa dinañu rey rek ci Ahmadu moom dinañu gaañ de sëñ Tuubaa defu ko dara looloo rek daan dem ba dee mu rek dinañu yow tubaab gi dana rey. daa bëgg daanu. daanu bu bëri la bëri. alors des fois ñu dem ci jàng yi rek di daanu. man dama yëg daanu defu ko dara defu ko dara. wóor na yàlla c'est lui qui a tout <laughs> créé. oui <laughs> créé le problème. merci d'être venu. merci d'avoir répondu à notre invitation maa ngi gërëm Yaya aussi mi jëmbal liggéey bi. Yaya suma euh, suma Yaya moom euh, c'est un gars qui n'est pas bien. il est mauvais. il va mourir il ira il ira en enfer. c'est c'est pas mon ami. je le déteste moi aussi. ok euh, c'est mais il couponne la Yaya. yàlla nga dem <laughs> yaa sama grand la mais maa ngi lay sant bu baax maa ngi lay béggee a baax mm-hmm. ku la sopp la ku la jox cër laa parce que macha allah da bëgg jeunesse bi te nit ki moom doo bëggee jeunesse bi bëgg jeune talent yi rek dañ lay bëgg parce que ñun ay artistes lañ mm-hmm. ñu ñu war a jàppale mooy yéen ñi nga xam ne Cheikh yaa ngi TikTok maa ngi TikTok Cheikh mën bi